L'actualité de ce jeudi, c'est aussi toujours le coronavirus. Le rapatriement des 13 Sénégalais bloqués à Wuhan n'est pas une urgence, selon l'ambassadeur de la Chine au Sénégal. Mais si telle était la volonté des autorités sénégalaises, Pékin ne s'opposera pas. Est-ce que vous avez été, saisi par les autorités sénégalaises concernant le sort de ces étudiants, les 13 Je n'ai pas encore été saisi pour rapatriement. si c'est le cas. c'est le cas c'est c'est votre ambassade à Pékin qui va faire des démarches là. Si les autorités formulent la demande, est-ce que la Chine est prête à accéder à cette demande? Pourquoi pas? Euh, mais maintenant, vous savez, dans la ville de Wuhan, il reste encore 6 millions d'habitants là. dans, dans la province de, de, il reste millions, peut-être 40-50 millions d'habitants là. Mm Tout le monde travaille ensemble avec les autorités, avec le gouvernement chinois. Mm-hmm. Vous ne jugez pas nécessaire de les rapatrier Ce n'est pas très, très urgent. Ce n'est pas une chose très urgente. Euh, maintenant, euh, il, il, il, faut avoir la confiance. Chaque jour, la situation euh, évolue. Demain sera, sera mieux qu'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui est mieux que, que, que hier. À défaut de les rapatrier au Sénégal, est-ce qu'il y a une possibilité peut-être de les déplacer dans les autres provinces qui ne sont pas, pas touchées Maintenant, ce n'est pas possible. c'est interdit des, des, des, habitants des, des de, de, Wuhan, de Hubei, se déplacer dans d'autres provinces. Ou bien vous, sortez, du pays. Euh, vous pouvez transmettre euh, nos messages à leurs familles, de, euh, leurs enfants à Wuhan, en Chine, c'est en bonne santé. Leur vie est garantie et assurée. Euh, il n'y a pas de souci. par ceci. Le gouvernement chinois, euh, la Chine est aussi un pays dérangant. Mm-hmm. Le gouvernement chinois et les autorités de Wuhan, de, de on va faire de nos mieux, pour aider les, amis étrangers mm-hmm. euh, résidant en Chine. Pas de souci. ñu ngi ñuy jaajëfal bu baax del si fii ci ndakaaru wax ci feebar bi ñu duppee coronavirus jëwrin bi teewal réewu Chine fii ci réew mi di ambassadeur ba nag jàkkaarloog nag suñu ndaw tey ñëwaat ci boobu boobule euh, feebar matuwaay ci euh, waa Chine jël ak ni nga xam ne rek mu aju ci mbiru euh, fukki xale ak ñett yi nga xam ne ay sénégalais lañ te nekkoon foofu ay étudiant jamono ji nag seen jur a ngi sàkku rek ñu jàppale leen dellusiwaat leen fii ci réew mi dañuy teewlu nañ ko suñu suñu naataango Chérif Diandoon ceeg Missane ak Mbaye Diouf. ndax gouvernement bu Sénégal jokkoon na kilifay Chine ngir ñu dimbali leen ci lu indi fukk ak ñetti étudiants yi nekk ca Wuhan. fi mu toll ni nag autorité yu Sénégal waxaguñu ak man ngir lu jëm ci delloosiwaat seen doom yi nekk fële ca Chine buñ ko defee nag bu booba ambassade bu Sénégal bi nekk ci Beijing moom moo koy toppatoo. est-ce que Chine pare na ngir dimbale Sénégal bu fekkee kilifa yi sàkku nan ngeen indi leen gone yooyu. pourquoi pas pourquoi euh, mën na nekk boo xoolee Wuhan 6 millions euh, doomu aadama ñu ngi fa euh, teg ci itam juróom fukki wu doomu aadama yi nekk ci province u Hubei wante nag ñëpp ñu ngi liggéey ak autorité chinoise yi. cinquante millions. da ngaa jàpp ni kon indiwaat gune yi ci senegal jaru ko. man dama jàpp ne dara yàkkamtiwul fi mu toll nii li ñu war a def mooy wóolu autorité yu euh, Chine ndaxte bés bu jot yëf yi ñu ngi gën di jëm ci kanam situation bi nag bés bu jot mu ngi jëm ci kanam boo xoolee démb ak tey nga gis ne lu bari gën na jaar yoon que jeex. que bu ñu demee ba mun leen a indi am na possibilité yóbbu leen ci yeneen gox-goxaat yi nekk ca Chine. maintenant c'est fi mu toll nii nag euh, jëlee leen ci Wuhan yóbbu leen feneen ci Chine mënul nekk ndaxte ñi dëkkee amu amuñu sañ-sañ jugee Wuhan di dem feneen ci Chine ñaari mbir rek moom euh, mooy mën a am euh, xanaa nga toog Wuhan wala nga dellu ci dëkk bi nga jugee. leurs mën ngeen a wax waajuri ndongo yi nekk fii ci waxaan ne seen doom yi am nañu wér-gu-yaram bu baax euh, feebar bi dalu leen te ñu ngi leen di aar bu baax Chine nag da ngeen di xam tamit ne euh, Chine dëkku teraanga la gouvernement bu Chine ak autorité yu ube yi ñu ngi def seen kéem kàttan ngir nag dimbale ñi nga xamante ne dañ fi nekk te dëkkuñu Chine les amis étrangers